إلى Euh, kooku ngeen di gis euh, moo di Serigne Fall mu Serigne Modou Fatou Khary euh, moom moo nekk noonu di ñëw pour jiite ñu tisbaar mu mel ni que tey bés bi fépp xamante ni diwaan la foofu lañ ko woote da ngeen doon di dugg ànd ak taalibe yi rifa gi leen char mbokk yi euh, ñu ngi fi euh, ñu ngi ak Serigne Fallou mu Serigne Modou Fatou Khary waaye ñu ngi ak euh, Serigne Saliou moom mi nga xamante ni moom moo jiite wàllu njàng jàng yi ak jàng alxuraan yi ci ci fi nga xamante ni moom lañ nekk kilifa gi ñu ngi lay siyaar. su borom na nga siyaar bu baax a baax. tey ñu gis ni Serigne Mountakha dafa woote journée xasaayit fépp ci réew mi ak ci bitim réew ñu ngi ko fay màggal tey ban yëg-yëg nga ci am. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk mi ñu ngi lay nuyu bu baax. yëg bi yëg-yëg biñ ci na mooy yëg-yëgu sant yàlla rek sant yàlla goo xam ne mi ngi jaar ci sëñ Muntaxa Mbàkke sëñ Muntaxa nag daa nekk koo xam ne lii mu santaane lu am solo la loo xam ne jamono laaj na ko diine ji laaj na ko yoon wi laaj na ko mu nekk loo xam ne nag lu am solo loo xam ne fii jamono toll ci fitna ak fii jamono toll ci ci jàngoro ji xew ak fii jamono toll ci nawet bi yooyu yëpp war naa tax eh, sëriñ bi santaane bisub ñaan boo xam ne dañ koy jagleel suñu borom tabaaraka wa taala mu nekk lu am solo loo xam ne nag fii ci Daaru Karim di pencum sëriñ sàmba tàmbali nañ ko fii ci suba ak léegi suba ak léegi ñu ngi jàng alxuraan di jàng xasiida ànd kook sëriñ Fallou Mbacke suñu xalifa bi ak jëwrinam sëñ Basiiru Mbacke mi sëriñ Moustapha Mbacke ak seen rakk ñoom ñëpp ñu ngi fi ñu ànd ko di ko dundal fii ci Daaru Karim pencum Daaru Karim subaak léegi dañ fi jàng ci kaamil bare na trop dañ fi jàng ci xasida ci façon ci xeetu wu ne bare na lool ba ñi ngi bëgg a àggal nii fa yéene jàng xatma ba ñaan suñu boroom lépp loo xam ne euh, sëriñ bi jublu na ko ci bisub ñaan bii suñu boroom defal ñu ko. te mooy jële fi jàngoro ji mbas mi ak indi nawet boo xam ne day tooy ndox mi bari mbaa nde ak jàmm ñëpp am wér ñëpp am jàmm loolu moo moo day yéene Serigne Mountakha Serigne Mountakha nag ñu ngi ñaanal suñu borom yàggal ko lool te weeral ko kilifa gu mat kilifa la kilifa gu mat a ñaanal la nag mu yàgg fa te wér ndax lii lu am solo loo xam ne euh, jamono da ko manqué lool waaw kon loolu rek moo doon kàddu yi. di sant sëriñ bi bu baax a baax ci teewaay bi di gërëm mbokk yëpp waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Saliou. Euh, ñu ngi ni ak euh, sëriñ Bassirou Mbacké euh, te ñu gis ni sëriñ taxa dafa woote journée xasaayit mais mu doon journée boo xamante ni mbo jullit yëpp wuy si tey lan mooy firndeel woote bi nga xamante ni sëriñ Mountakha woote na ah xam nga sëriñ Mountakha day xalifa général de Mouride toogal fi sëriñ Touba moo tax bu wootee ñëpp nuy wuy si ndax jullit yi innamal mu'minuuna ixwatun fasloo bayna ko comme jullit yi ñun ñëpp benn lañ bu wootee dana gis jullit yëpp kuy mënta ñëwee da nga yéene moo tax bi mu waxee ne na ko ku nekk defee fa nga dëkk ñun nag fii ci Daaru Karim mooy fii lan dëkk ñu ànd ak suñu kilifa gi nga xam ne mooy xalifa sëñ Modou Faty Khary bi sëñ Fallou Mbacké ak rakkam yëpp ak taalibeem yëpp ak xaritam yëpp nu di ko def fii loolu di dundal ndigal yi fii ndax loolu sëñ bi joxe ndigal ne ku ne na nga ko defee fa nga dëkk tey mbooloo bi daal di ñëw daal di wuy si ak fi nga xamante ni fa la fi la dëkk bi toll ci mba feebar bi nga xamante ni moo lëmbee àdduna loolu gëm nañ feebar bi waaye sëñ Touba maanaam bu ñu doon dee dana ñëw ndax nun sëñ bi leen gëm bi gëmee yàlla ak yonent bi sëñ Touba mooy suñ lépp buñ sëñ bi woo itam bu doon dee ba jee ci xewet bi daañu ñëw ndax sëñ moom lu mu dëggal rek suñ lor du ca nekk loolu moo tax ñëpp ñëw wuy si ko te ragal naa sax bu sëñ bi noppee ba ñaan ba noppi mbas mi bu jeexulee day wàññi ko lool kon foofu la ñuy tëjee kartu gi ñu daal di dem julli ci tisbaar ci kàttanu yàlla lépp loo xamante ni information la leen leen ko taataanal ci kàttanu yàlla ak mbaaxam jërëjëfe Cheikhul Khadim jërëjëfe Cheikhul Khadim jërëjëfe Cheikhul Khadim